dama asalaamualeykum wa rahmatullah wa maa ngi nuyu àdduna ak Sénégal di nuyu askan bi yëpp man la soxna Awa Konte mu gën ma xam ci seet ak faj du may faral nag di def vidéo waaye tey dama ne naa def vidéo wax ci coronavirus bi nga xamante ni balaa la bu suñu boroom wàcce ci suñu kaw macha allah man nag li ma ciy wax mooy ci wàllum set gi loolu mooy waral ñu mën ko song mën ko daan gaa xam naa ne ñëpp set nañ sax waaye ñu yokk set bi ku toog 30 minutes yu ne da nga dem raxasoog saabu laal alkozen poignée yi ci buntu kër yi ak buntu néeg yi ku koy jàpp su la mouchoir jegee nga jàppee ko mouchoir saa yooyu wax ak sa moroomu doomu aadama dàndee ko ñaari mètre saa yoo dendeeg sa moroomu doomu aadama daan di wax ak moom den dànd ko ñaari mètre sooy tisoo li jëlal mouchoir sooy sëqat ñëwal ci sa loxo nga sëqat fa sooy dox sax ci mbedd 30 minutes yu ne war ngaa dugg si benn kër bu la gën a jege ñaan fa raxasu loolu buñ ko dee def bu neexee suñu borom noonu bii ci suñu biir di coronavirus dinañ ko song dinañ ko daal waaye lépp nag set ak muñ ak tàppe xol yi mooy waral loolu am ndax kat yàlla daf ñu may ay jàmbaar jàmbaar yi mooy suñu docteur yi xarañ nañ lool mën nañ lool li ñuy def ñu ngi yuuxu guddi di yuuxu bëccëg di yuuxu suba ngoon ci télévision yi ci rajo yi di wax ni noonu leen dàppale ci cat gi cat gi nag paasewul lii ñu leen wax macha allah nañu ci tënku su ko defee ñu songu ko daan ko mu génn si àdduna bi ndax activité yépp taxaw la dara doxatul dara doxatul kenn koo gis ma nga jaaxle bu muy doxe ndax lii am nii kon nañu tënku ci set ak muñ macha allah tàppe xol yi doon benn waa te njiitu njiitu aada bi nga xam ne mooy suñu président li mu ñu digal ñu def ko ci état d'urgence bi ñu tuddee couvre-feu képp koo xamante ni vingt heures yaa ngi doxi say soxla fexeel ba vingt heures mu joxee dernière heure bu mu la fekk ci biti diggante 7 heures du matin ba 19 heures nit ku ne la nga war a doxi mën nga ko ci profité doxi ko ci ñëw muy marché muy moo xam soxla boo mën a am soo ca paree bul jàdd de gauche à droite di mën nga ñibbi directement te soo yeggee bala ngay nuyu famille bi nga fekk ci kër ga njëkkal jubal ci njëkkal jubali ci saabu ba raxasu ba set jël alkozène bi jël mouchoir fomp doo nga mën a waxam ak ña nga fa bàyyi woon bul ñëw rek commencé di waxte raxasuwuloo lii daal buñ ko defee dinañ song virus bi dinañ ko daan muy balaa bi suñ borom wàcce danañu abal bu neexee yàlla wér dina dellu si dina dina nekk si jàmm ndax kat ñëpp ko gëm de ndax lu am la lu ama am la mu ngi ci àdduna te saa yoo xëyee foog ni day dellu ginnaaw muy gën a yokk kon nii nag lañ koy defee pour mu baax ñuy muñ tàppe xol yi te bañ a dëgër bopp ci dénkaane yi ni docteur yi dénk suñu jàmbaar yi ak kilifa aada bi fi yàlla teg muy président ci li mu ñu wax ñu tënku ci te man day soxna Awa Konté maa ngi baaxee askan wi àdduna wërngal këpp ku ko dégg na ko def baa nga jottali ko sa moroom mu def ko muy kilifa gu kilifa gu góor gu ne ci biir këram wala kilifa gu jigéen mu nekk ci biir këram soo mu ne wàcceelu kaamil te yàlla rek tax na ko def soo ko mënul kenn ci membre de famille ba na wàccee lu kaame soo ko mënul nga génne kilo guro bu xonq sarax ko góor kilo guro bu weex tàll nga sarax ko jigéen kenn kuy tëdd na nga teg kaasu ndox ci sa buntu néeg soo xëyee sotti ko ci bunt bi wala nga sotti ko ci bunt kër gi ñam yàlla lépp sedd guy lépp sedd guy te képp kuy jullit bu góor baag bu jigéen ba bu mag baag buy bu ndaw la képp kuy jullit rek na nga sàlloo ci sa làmmiñ laa ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam képp kuy jullit na nga sàlloo astafurlah astafurlah di jéggalu ci suñu borom képp kuy jullit na nga sàlloo salaamun hawlan min rabbi rahim képp kuy jullit na nga sàlloo laa hawla wala xoota illa billah lii daal buñ ko dee sàmmoo bu neexee suñu borom te tàppe xol yi te nangoo muñ tey demee ndigal te bañ a dëgër bopp amaana yàlla dinañu defal moom subhanahu wa ah, lii di balaa bii mu wàccee dinañ ko mën a daan dinañ ko mën a song dinañ ko mën a daan dinañu abal macha allah lii laa amoon lu may indi comme contribution asalaamualeykum wa rahmatullah wa